dañ koy door ak mbirum Ousmane Tounkara nga xamante ne doomi réew mi la nekk fële ca bitim réew doon def ay live ñu gis ne dafa def ay menaces de mort ak bu euh, ñu koy toppee dem nañ ba am ñu jàpp ne sax dafa daan jël koppar di ko financé ñi nga xamante ne ñoo doon caxat-caxate réew mi bi bi mu yëngatoo woon ci début mars bi alors ñi ñan xalaat ne dinañ ko dellu ci fii ci Sénégal ban lecture nga ci am man de su ma sañoon sax question bi anglais laay tontoo parce que mbir mi nag c'est très Mm-hmm. ma ma may kon anglais tuuti kon. yes I would like to say to the international community that uh, mm-hmm. what is happening in the USA with uh, arrest of uh, Usman Tunkara is unfair because they want to show the international community uh, that Usman Tunkara has committed a crime that he has committed something extraordinarily bad for our country Senegal which is false. because Usman Tunkara has just voiced his mind in what is happening in our country. Mm. He hmm. is not somebody who is a terrorist because they want to present Usman Tunkara as a terrorist and they know that Usman Tunkara is not a terrorist. He is a Senegalese citizen based in the USA and who is giving his opinion in what is happening in our country. So I don't want the police uh, of the United States, the immigration officers of the United States to be um, to be uh, in a situation that they make to, be, to make a mistake in that in that in that affair and to deport him to Senegal. I think that they should be um, they should be cautious and investigate the case and know. And I would like to tell them that Usman Tunkara is not a terrorist. He is just voicing his mind in what is happening in the country, and they want to treat him as uh, what they did with Assam Diouf to deport him to Senegal just because he is voicing his mind and he is saying something that doesn't please them. I would like them to be cautious about this and not to make mistake this second time because that's exactly what they did with Assam They deported him to Senegal and all the Senegalese people, they know that it was a big lie and they shouldn't do the same for for for tappale baaxul. Eh, Ousmane Tounkara deful dafa nekk ab sénégalais bu nekk ca États-Unis di wax li mu xalaat loolu mu xalaat nag moo leen metti même bu fekkee yenn saa yi mu wax loo xam ne neexu leen. mais wax na lu ëpp nag bii. non non non non non même bu xalaatam la rek. daam non déglu ma déglu ma xalaatam la waaye wax na lu ëpp. parce que ne am na ñoo xam ne dinañ dinañ ñi ngi ñi ngi pare seen kaw dinañ menace de mort yoo xam ne daf ko def de façon ouverte. loolu lu ëpp la tamit bu bu ngeen loolu je pense que bu ngeen bu ngeen koy jàppale tamit. da di nangu ne cette fois ci wax na Ousmane Tonkara nit mën naa juum fii lañ gis Aliou Dembourou Sow wax fi ni dañuy jëlee ay jaasi képp ku fi bañ euh, Macky Sall continuer ak nguuram ñuy continuer réew mi ñu rey la yore ne dañ jël seen i jaasi roppi seeni jaasi gaañe ray nit ñi du loolu la wax mu leer nañ est-ce que woon nañ ko. est-ce que est-ce que euh, bu ndoxataal nañ ko waa léegi xanaa kon léegi Ousmane Tounkara du sénégalais comme moom kooku mën nañoo jàpp ne daa juumoon ca wax ja moom sax te gën na ni juumul ñoom moom loolu wax loolu la gëm mais léegi nit mën naa juum mais ngi noonu dara fekk ko ci lu tax ñu bëgg jël doomu jàmbur te kii ne ci réew mi te gën jëlewu ko il faut qu'on soit sérieux ñun li gëm mooy position la loolu mu wax ça n'a rapport ak li xew Sénégal Sénégal ay sénégalais ñoo génn manifester fii kenn bu ndoxataalu fi kenn li wax xalaatam la. menace de mort waaw mooy menace la kee kay moo gën a garaaw kee wax da dañuy génnee arme rayante loolu la loolu la loolu la Aliou Dame wax te fi mu ne nii kenn waxatu ci. mais situation du ñu benn. non benn la dëkk mu jaxee. dëkk dama ne la du ay benn la rek benn la ku ne damay génne jaasi xeex. Mhm. wax na appel appel à une guerre civile. Mhm. loolu la def li wax lu garaaw la. andi bot di compter. andi violence loolu lépp am na ci discours Aliou Dembourou Sow te dara fekk ko ci kon nag Ousmane Tounkara lam wax même bu fekkente ne mën nañoo wax ni mënoon na ko waxee neneen nu gën a rafet man jàpp naa ne di ko tuumaal terrorisme pour jéem a def comme niñ defoon Assane Diouf pour delloosi ko loolu loolu baaxul gis nga nit say doomi réew waroo leen a dem jëli euh, boo jëlee kii nga xam ni mooy Souleymane Jules Diop. bi muy nekk ci nguurug euh, bi bi jamonoy Ablaye Wade mais lu mu fi waxul Ablaye Wade tey jii mu ngi ni pourtant Ablaye Wade demul jëli ko pourquoi Ablaye Wade à l'époque ba pourtant Ablaye Wade bu meloon comme Macky Sall. Mhm. kon Souleymane Jules Diop ni mu ko doon def à l'époque toog Canada xaw ma états def lu ko neex di attaqué wax lu ko neex même même Macky Sall mi sax da ko ci daan boole mais pour pourtant kenn mosu koo jëli dem na sax taxaw Ablaye Wade nekk ci benn manifestation à aux états mu dem taxaw fa wut ay nitam ñu taxaw di koy yuuxoo ba nag dugg ca saal ba di wax lu bon Ablaye Wade ba dañ koo patam patamee génne ko saal bi pourtant malgré ça kenn defu ko dara dañ koo bàyyi ba ba alternance am mu doog a ñëwaat ci réew mi ñu def ko fi ministre kon na gis nga Macky Sall na accepter la contradiction contradiction dafa baax nit ki nga am sa xalaat bu wute ak kii jiitee réew mi ak ñi ànd ak moom nga taxaw di ko wax ñu may la chance nga koy wax. merci Dame foofu donc jàpp naa ne daal li ñu war a li ñu war a moytu mooy. di jéem a andi. Mhm. Ousmane Tounkara Sénégal. di ko xañ teraangaam jëm état am États-Unis te sénégalais yëpp fu ci ne fu ñu mën a nekk ki ànd ak Macky Sall ak ki ko compte dañ ko war a aar. yiir ko jàppale ko pour mu pour mu gën a mën a def liggéeyam waaye nag di ko jéem indi andi Sénégal pour jaay ko doole jëm ko tëj ak di ko jéem a diaboliser man jàpp naa ne du rôle chef de l' man li ma gëm mooy Sénégal warut a nañ teg mbir mi ci suuf bàyyi ñu génn ko ñu leeral ni du terroriste parce que mën naa wax wax ju ñaaw mais benn sénégalais gëmu fi ni Ousmane Tounkara terroriste la kenn gëmu ko fi <laughs>